ki ngay bëggantel nga bëgg mu bëgg lool lool moo xam sa jëkkër la wala sa jabar wala ki nga xam da ngay ñi nekk te bëgg sëy am seen diggante kon loolu farata la yow may déglu mën nga ko def ndax nekk na secret boo xam ne yàgg nañ ko liggéeyal ay nit yàgg nañ ko jarabu mu nekk tam lu saxee lu wér ñu leen di ñaan nag képp koo xam ne yaa may déglu te di ko def yàlla nag mooy mottali ndax ñun mënuñ dara yàlla moo mën lépp lu waaye def mu sotti rek yàlla la neex waaye am nañ si yaqin am si yaakaar boo xam ne si ñun nuñ koy defee di si am ndam ñu ngi leen di ñaanal yow mi nga xam ne yaa ngi may déglu di ko seetaan boo ko defee itam te jublu si lu baax yal na yàlla defal si ndam boobu dégg nga te ma leen di wax tam ne leen bépp si kër bi mu leen di jox fii rek ñii dana ma oo ne ma ah alhamdulilah rabbil alamin gannaaw yalla yow yaa tax nangam nangam nangam am na tam ñoo xam dañ la oo ne la am ah, kat gis nga gis naa dara nga joxe ko def naa ko waaye gis ma si résultat àddina moo tëddee noonu. waye lu si ëpp nak dañuy jot ay retour yu positif kon yow mi nga xam ne yaangi def li ma lay ñaan nga def ko ci farata ndax boko defé ci leneen lu du farata rek ah yaakar na né di ko layo té itam dana metti ci yow kon def ko ci farata lu mu yagg di liggéey ta xam jëriñ gi ci né pour ñi nga xam ne sam ñi ngi bëgg def istikhara di sédu seen bir wala lu jëm si walu digënté wala yu mel mën ngeen ñu yone message ci whatsapp bi ci numéro bobu non wala ngeen woñu 76 605 73 19 dégg nga su ko defee incha allah rabbi loolu dañ leen si taxawal secret bi yomb na lii nag ñama ko lañ koy tuddee ñama ko mu nekk seen écran ñama ko ngay ut doom yi nga ut si ñett nga seq ko sa gémmiñ nga jël sa bikk nga bind wala xëdd xamat bi xii wa xamat bi xaa ñeenti yoon si biir miim mii ngay bind sa tur yow mi bëgg bind sa tur si kaw ki nga bëgg bind turam si suuf ba mu paree nga lem kayit googu noonu ut doomi soble xar ko nga fekk si boobu si lépp li ngay bind yëpp yaa ngi ñaanale nag ndaxte boobu euh, euh, doomu ñama koy ñu ngi sa biir gémmiñ su ko defee ngay bindaale soo paree na nga jël loolu noonu nga def si diggante ñaari xaritu soble yi nga ut loo ko lëmasee morceau wala mbuus nga fexe suul ko foo xam ne maanaam day faral di tooy loolu benn la si ñaareel ba dangay fexe itam euh, nga bind wala xëdd xëmbat bi wa benn yoon nga yaatal mii mi bind sa tur si kaw turam si suuf so paree boobu si biir junni bëy nga koy def so dee si biir junni bëy su boobaa da koy def fo xam day tank wa kon yi ma wax ni ku am xam-xam deg ma dina xam ni may wax benen ba so mari wut eh, nga bind suratul fatiha juróom-ñaari yoon nga yaatal mimi nga bind turu ki nga bëgg ak turu turam ak santam ak turu yaam boko xamé nga bind ko boko xam nga bind turam ak santam so paree nga jël lolu de nga def ko safara juróom-ñaari nga koy bind nak def ci parfum bintu sudan wala duniya boo bindee fàtte juróom-ñaari yoon da ngay yaatal miim mii bind si tur ki nga bëgg turam ak santam wala turam ak santam ak turu yaam sant yaayam soo paree nag loolu lañ koy def saafara di ko raayoo di si ñaan li nga bëgg wala laazim nekk na secret boo xam ne ñi ma ko defal bari na lool waaw te xam naa li may wax kon yow may déglu jël ko nga def ko ndax sëy yëngatu na jafe-jafe yaa ngi gën di am da ngay gis koo xam ne da lay jooytu sama jëkkër sama jabar sama nangam ki may bëgganteel nii dugg na fii génn fii dafa bëri lu ñu koy jooytu moo waral nag yenn saa te mënoo ñaanal ñëpp nekk na ñëpp nga mën a defal kon ñu ngi ñaan si yàlla yaakaar bu mu ngeen am yàlla bu mu tas yal na yàlla fajal leen seen aajo ñu ñëpp si Zahiroul Hizbut dafa ñu jàmm ak tawféex diggante yi ba suba incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah